la bu ñu xayma mu toll ci benn milliard yu toftal ñeenti téeméeri million ak ñaar fukk ci suñuy koppar mu di yàpp woo xam ni toll na ci fukki junniy pièces jóge ci at bu atum 2023 bu Arabie Saoudite daal di koy may réewum Sénégal. mu di cérémonie de réception boo xam ni ko ko jiite moo di ministre la famille et des solidarités Maïmouna. ngeen permettre ma ci turu gouvernement ak sama tur ma gërëm réewu Arabie Saoudite lu am solo la ci ànd muy loo xam ne nag tradition bu yàgg la mooy li ma wax léegi tradition boobu bu weesoo lii ci yeneen fànn nekk na loo xamante ne Arabie Saoudite dafa mës a taxaw suñu wet xaatim nañ ay convention yu bëri suñu diggante ak réewu Sénégal ci Arabie Saoudite dafa jàppee Sénégal réew xamante ni dañuy faral di lëkkaloo lu bëri loola tax danañ def lépp ngir gën a mën mu di yàpp boo xam ni def nañ ko ci ay carton mu war a jëm ci njaboot yi nga xam ni dañoo néew doole loole ngir ñu mën cee dimbalikoo ci feetum tabaski mi ñu maa la. dafa yegg ci waxtu woo xam ni ñi nga xam ni ñu ngi dund situation bu metti dañoo bëgg mu doon loo xam ni dafay saafarawu kon ku ñu ci jàppale rek dañuy jàpp ni ah pare nga ànd ak ñun. ci dispositif bu bees bi nga xamante ni mooy li ñuy woowee transformation systémique du Sénégal maa ngi exhorté ñi nga xamante ñoo koy séddale mu fexe ba ñàkk a ñu jox leen ko. kilifa ñaar réew yi lee fas nañ yéene daal di woyal seenub lëkkaloo ngir gën a mën a dimbali pàccu askan woowee nga xam ni seen loxo jotul seen ginnaaw.